El Hadj nuyu naa la. Seynabou fay naa la maa ngi lay bëggee. mais ci loo nekk. maa sant yàlla alhamdulilah. Euh, tey ñu dajeeg yow fi nga xam ne nag moom moo di euh, mariage yu Fata borom talent d'or. Mm. est-ce que mën nañoo xam sa relation moom lan la. waaw Fata nag macha allah lu yàgg la lu yàgg la daf ba ma sama premier single muy Falashima bi jabaram bëgg macha allah ba ma ko génnee rek si la ñu xamante mm, ñu sekk teranga ñuy dem sekk demlante sekk ñëwlante. macha allah ba ma duggee Seneweb Fata mu njëkk tax waaw Seneweb bu ma fa njëkkee ba xam sunu DG ah Abdou Salam Fall ma koy nuyu de passage ba ma ñëwee premier premier jour ba ma ñëwee Seneweb la ma teral waaw ne ma sama doom yi dañoo bëgg Bine Fall teral ma may ma xaalis bu bari maa ngi koy nuyu de passage waaw Fata nag muy ku baax tey bu xewlee ma war a ma joué ba pare ma ne faw ma daw ñëw sagal ko ci bësam ndax soxna si mu takk tey man la ko njëkk indil maanaam bu ma nee woon man la ko njëkk indil bokk naa si ndax si ñi ko ñi ko njëkk découvrir maanaam mu ñëw ne ma kii laa bëgg a takk boobu boobu yàgg na boobu amaguñu sax waa boobu ta xalaatagul sax takk bi mel ni da ngeen am relation particulière au delà de professionnel am nañ relation yoo xam ne macha allah suma xarit la Fata day taal ñëw ba sama buntu kër ne ma ñëwal yéegal ma ne ko fu dem mu ma nañ dem doxantu ñu dem doxantu dem toog waxtaan macha allah mu may wax ay projet nag maanaam maanaam muy ku baax ku baax macha allah moo tax tey nii rek laa mën a def bàyyi sama lépp ñëw ci moom. ay terminal. Euh, El Hadj El Hadj Keita euh, nuyu nañ la bu baax waaw. fay naa nag yaa ngi si waaw euh, toujours di liggéey. ñu bëggoon xam li ñu dencal. kañ lañ ci war a jot. waaw loolu nag Mbacke Dioum Mbacke Dioum Abdou salaam DG wool Mbacke Dioum moom ah. xaritu Mbacke Dioum la Mbacke pare na album bi bu yàgg xaw ma lan lay xaar xaw ma lan lay xaar waaye nag ah moom bu xaar bu ma xaar looy damay xaar ndax suma papa te am na expérience ci musique kon bu ma xaar looy rek damay xaar liggéey nañ ko ba pare incha allah buñ ko yekkee ngeen xam ni tëju naa liggéey naa. Mm-hmm. Euh, ñu gisoon benn label bu ñëw implanté ci biir Medina. Euh, jëloon ay doomu Medina ku ci mel ni Soriba moom it gëj nañ ko dégg muy sa cousin ku ci mel ni El Hadj Keita ñu xëy xëy gisatuñ fa El Hadj Keita malgré génn nga ba relation nga am label boobu. waaw xam nga àdduna day am ay jaar jaar. Mhm. jaar bu rafet laa fa jaar ma koy nuyu de passage maam Cheikh Mbaye jiri ngoone mhm. maanaam moom suma lépp la suma grand la bu baax la ba pare jël xaalisam di ko investir si jeunes yi nekk fii mhm. kon macha allah euh, maam Cheikh maa ngi lay bégee di la di la wax fonce macha allah ñoo ngi si ginnaaw sama waay la. waaw ba tey foofu nga taxawee mi naa laay dugaatee coowal label yi parce que gis nañu jamono ji euh, label yi seen coow bari na euh, te problème yaa ngi continuer di wéy euh, tout récemment gis nañu ki nga xam ne moo di Ibro Nadio dafa daal di def soirée foofee ca diwaanu Almadi daal di def malaise sur scène ñu bëri nag daal dina dañ ko marabouté ñi naan biir suba teel ak moom ba ñu déggaat ne sax ne dafa daal di retiré wu li nga xam ne moom moo di biir suba teel mu mel ni artistes yi dañuy jooy li nga xam ne moom moo di problème label yi. waa label yi xam nga label yi tamit dañuy jàppale xale yi ñu ngi ñuy jàppale nag label yi parce que ñun ñi nga xam ni dañuy dem ak suñu propre moyen bu ñu amee benn label boo xam ne moo ñëpp doole day ñëw nekk suñu ginnaaw waaw pour jàppale ñu label jàppale rek la ñu mën a artistes yi noonu la demee moo tax man moom maa ngi nuyu label yi nekk Sénégal yëpp parce que ay liggéeykat la ñu ah Ibro tamit muy sama frère maa ngi koy ñaanal yàlla may ko tan ah yàlla may ko ba mu delluwaatal ci ci liggéeyam. waaw waaw loolu moom loolu moom am na am na am na am na on est des africains am na waaye yal nañu yàlla musal ñun ñëpp yàlla sàmm na ñun ñëpp yàlla defal ñu jàmm ñun ñëpp. waaw El mbooloo bi ñuy woote ci artistes yi gis nañ ni bi nga xam ne ne euh, Wally Seck mu ngi woon euh, bitim réew waroon tëgg ba gars yi ne du fi tëggee ki nga xam ne moom mooy Demba gisee dafa génn def vidéo am yeneen artistes aussi yu def vidéo di ko di ko ñaanal njëkk ñu invité ko mu ne artistes yëpp dañu war a booloo nekk benn. dëgg la artistes yi bëri na ay clan bëri na ay kii pour yéen lan moo lan ngeen war a def pour yéen ñëpp nekk benn nekk see bu ñu laalee kenn rek mën a laal ñëpp. dëgg la dëgg la loolu loolu yàlla nañ ci yàlla dimbali ñu ñëpp ñu juboo doon benn say parce que ñun ñoo war a jàppalante suñu biir ñun artistes yi parce que bu nit amee métit daf laa war a gis bu nit am na naqar. daf la war a gis parce que on une famille parce que nit mbër yi ñoo war a jàppalante seen biir waykat yi ñoo war a jàppalante seen biir yàlla yàlla leeral xol yëpp ba ñuy jàppalante suñu biir yéenante jàmm ñun ñëpp yàlla ñu defal jàmm ñun ñëpp loolu laa am lu ma ci wax waaw. jamono ji lan ngay waajal ku wax été xam ne période la boo xam ne euh, artistes yi dañ ciy profité bégal seen i fans ñu ngi ci été nag été bu métti ndax tàng tàngoor bi moom jamono ji macha allah looy waaw ñu dinañ def ay ay ay ay ay concert plage incha allah ñu ngi koy wàcc ak Mbacke Dioum incha allah yéen waa Seneweb ak waa Senego pare leen xam ni El Hadj du leen may dara. d'accord màgg naa. Mm-hmm. waaw ayca màgg na loolu màgg naa màgg naa aji tàggatoo ak yow. Ah, merci beaucoup merci beaucoup waa Seneweb merci beaucoup Senego merci beaucoup Wahab Mina je vous adore. merci. Eh.